الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي ديلو سيوات ci tawfiqu borom bi jalla wa ala di am mbégte lool ci dajawaat ak yéen ci ñaareelu tolluwaay bi muy niveau 2 bi gannaaw ba nga xam ni sunu boroom defal nañu tawfiq nu jàll niveau 1 bi muy xaaj bu njëkk ba nu dajawaat fii ci tawfiqu borom bi jàll waala ngir jublu ci ñaareelu xaaj bi muy niveau 2 bi mbind mi nag di mbind bi jëkk muy ad darsul awwal ma mbind mi aju ci wàllu dëgëral la nga xam ni jotoon nañu ko am ci li jiitu ci niveau un bi dëgëral ko renforcer ko màngook ngoog ak it yaatal ko moo tax day mel ni dañuy nafar maanaam dañuy réviser màngook yii ñu jàkkaar lool ni ci mbind mi muy bind benn bi du loo xam ni yu bees la ci ñun am na loo xam ni jotoon nanu ko cee gis donte nag sax yaatuwul woon xëy na fii incha allah daanu ci am ay yaatal ak ay leeral kon loolu mooy jubluwaayu mbind mi bàyyi ci xel bu baax mangoog xam ne du mbir yu bees yoo xam ni day bees ba jaaxal ñu déedéet doonoon na loo xam ni jotoon naa romb bu ko defee kon lii day doon ak waajal ci lay ñëw ca kanam incha allah mango ndax fanu fas yéene àgg mooy àgg ci jàng làkku araab nañ ko war a jànge loolu nag dafa laaj ak waajal maanaam préparation mango fexe ba nu am le maximum nécessaire ci ay jumtuwaay pour mën a kon sóobu ci jàng làkku arab mbind mi nag muy addarsul awwal mu ne faslun fi ijtimaai shadda maa al maddi wa tanwin mbind la moo xam ni dafay dikk ci ànd walla daje goo xam ni lañuy wax shadda ak madd ak tanwin dañ koy daje léegoo léeg ci baat kon du saasone rek ñoom ñëpp ñu dajendoo ci baatu araab yëpp déedéet am na ci baat yu ñuy daje am na baat yu ñu dul daje ma xëy na kon ñoom ñett bu ñu dajee diisaayu loola ma ngoog ngir kon jàng ko jaar ci xam ni loola du lu diis lu woyof la xëy na la ca dajee bari kepp waaye lu woyof toll la ma te incha allah bu ñu duggee ci mbind mi loola dana leer bu ko defee balaa nuy sori nu fexe fàttaliku lan mooy shadda shadda moom benn màndarga la maanaam benn signe boo xam ni arab da koy teg ci kaw araf ci kaw lettre du lettre yépp nag yenn lettre yi lañ koy teg lañ ca jublu mooy wane ne lettre bi kat des koo ñaaral maanaam dañ koo duble te binduñu lettre ba ñaar yoon dañ ci def màndarga bii bi wane ne lii dañ koo duble bu ko defee kon duble ga day feeñ ci boo koy wax maanaam boo koy dawal di ko liir da cay feeñ comme boo nee madda gis nga madda xam nga boo dégloo bu baax da dégg ma la topp ca ma ba dangay dégg mu ne dë mad gis nga mat da dangay ngay dégg dë doo ko dégg daa gis nga ko nga gis kon ne foofu lettre boobu di daal bi des koo tudd ñaari yoon tudd nañ ko dë tuddaat ko daa ndax lan shaddaga kon dañ ko fa doubler dañ koo ñaaral loolu mooy shadda ma bu dee li nga xam ni mooy màdd màdd moom mooy xëcc xëcc waaw xam nga ah jàngoon nañ xëccam i jàngoon nañ xëccam u jàngoon nañ xëccam ah boo koy xëcc nga ne aa i boo koy xëcc nga ne ii u boo koy xëcc nga ne u uu gis nga noonu la ba araf jeex loolu mooy matt mooy xëcc yi tanwiin mooy maska bi yoon nag du araf waaye maska maska yi ñu ñaaral maanaam maska yi ñu duble loolu mooy tanwiin bu ñu dublee maska yi waaw ñu fexe nag bañ koo jaawaleeg shadda shadda moom mooy bu ñu doublé lettre bi mooy araf bi wii nag mooy buñ doublé masque bi te loolu it jàngoon nanu ko ah buñ ko defee maanaam buñ ko dublee ñaaral ko mu nekk an gis nga an ban tan san loolu jàngoon nañ ko i tamit buñ ko dublee mu nekk in bin tin sin u tamit buñ ko dublee mu nekk un bun tun sun gis nga loolu it jàngoon nanu ko kon daal gis nga li fi nekk nii du loo xam ne jaaxal nañu ndax mosoon nañ cee jaar maa ngoog xëy na nag dajewuñu woon ak baat yoo xam ne ñoom ñépp dañ cay daje ndoo xëy na loola mooy la ca bees kon dara du soppeeku na ko doon defee noonu nga koy defee rek boo gisee araf bu am shadda nga xam ni kon araf boobu ñaar la gis nga ko boo gisee mu am araf boo xam ni des koo mat nga xam ni dañ koy xëcc gis nga ko mangoo boo gisee masque ñu def ko ñaar nga xam ni tanwin la mangoo araf yi nga xam ni nag ñoom lañuy xëccee yooyu it gisoon nañ ko ñetti araf la bu fekkente ne fatxa la muy a ba ta sa araf bañ koy xëccee alif lay nekk a ba ta bu fekkee kasara la muy ibtc araf bañ koy xëccee yaa lay nekk i bi bu fekkee domma la araf bañ koy xëccee waaw lay doon wu bu tu su ma bu ko defee nag boo xoolee mbind mi des koo xaaj ñaar ñaari xaaj ma xaaj bu njëkk bi jàngalekat bi moo ci war a jaar ma loolu moom jàngalekat bi moo ci war a jaar joxe ci misaal te mooy mbindu mi nga xam nii moo nekk ci suufu mbind mu xonq mi mooy mbind mii di fes nii xam nga dafa am mbind mu xonq ca suufu mbind mu xonq ñu def ay rëdd yu ñuul mangoog wërale ko muy lu weex ñu bind ca biir mbind yu ñuul foofu la ñuy wax ci suuf nag doon loo xam ne dafa mboq maanaam daa zone mangoog kon jàngalekat bi moo war dikk joxe misaal yi baat par baat bu ko defee dañ koy benn bennal ba pare doo koo boole mangook ngoog a ma la topp ca a nag arafu faa la waaye arafu faa dafa yenu ñaari biir benn bi mooy dafa am shadda gis nga shadda gi nii ma ba pare des koo xëcc kon bu amee shadda day wane ne ñaari araf la buñ ko xëccaatee dooleeku na benn araf mango kon shadda gi day wone ne fë ak fa fa boo xam ne nag dañ koy xëcc mu nekk faa kon fë ak faa ngay am foofu maanaam af faa gis nga af mu nekk a ak fë après faa gi doog a ñëw la ca topp muy kin mu am tanwin ndax ñaari maas la kin boo ko boolee mu jox la afaakin ma ngoog afaakin mu jàll ca ba ca topp fii am nañu doo waaye doo gi dafa xëcc kon dañ naan doo doo la ca topp di laam laam boo xam ne nag dafa am ñaar faw ñuy xool kon araf bi li mu am maanaam laam bi am na shadda gis nga shadda gi te am na tanwin kon day doon lë ak lun gis nga bu boobaa suñ ko booleeg doo gi nga xam ni des koo xëcc day joxe doolun gis nga lë lun dallun dallun ba ca topp yu yu araf ba ca topp di waa waaga nag dafa xëcc waa araf ba ca topp di du waaye dafa am shadda kon foofa day doon ñaar dë ak du mu nekk yu waad waaddu gis nga waaddu waaye du giit am na leneen lu ca nekkaat mooy des koo xëcc waaw kon boobaa dañ naan yu waaddu gis nga ba ca topp na yu waadduuna gis nga yu na yu dë bi duuna ba ca topp to ma la ca topp di ba boo xam ni benn am na shadda ñaar xëcc nañ ko kon loola dalay jox tob baa gis nga tob bë bi ndax shadda gi bë ak baa tob ndax waxoon nañ la shadda moom kenn du bind ñaari araf yi waaye màndarga gi rek doy na pour nga xam ni fii ñaari araf la ma ngoog la ca topp di xun boo xam ni daa am tanwin boo ko boolee mu jox la tob baaxun tob gis nga tob baaxun doo wax tobaaxun boo waxee loolu yàq nga ndax dañoo doublé baax bi te yow woo ko kon loolu il faut ñu bàyyi ci xel bu baax tob baaxun ma kon gis nga misaal ya ma nga noona léegi nag la des mooy ndongali moo war góor-góorlu léegi nag ci mbind yu mboq yi ma waaye comme li mbind mu njëkk bi la nun daanu ci fexe jaar ci benn par benn ngeen dégg ko bu ko defee bu ngeen ciy jaar yéen it ngeen bàyyi ci xel waaw afaakin gis nga afaakin doo wax afaakin parce que boo ko waxee rek yàq nga ndax yàq nga shadda bi af afaakin baat bi ñëwoon na sànq doolun gis nga lun baat bi ñëwoon na yuwaaduuna tobbaaxun jàll ca kii ca topp haddaamatun gis nga ko ba ca topp kannaazin ba ca topp xammaalun ba ca ba ca topp hammaazin ba ca topp lammazin ba ca topp in waaw loolu kenn ko jàng comme ay noonu waaw loolu hamza comme abata koy jàng ibtc e mashaa'in in ngay wax daabatin daab gis nga bë ak ba dabbatin dabbatin ba ca topp xaajaka xaajaka jaka xaajuuka ca topp dolliina ba ca topp atu xaajuni ba ca topp tommatun ba ca topp xaaqotun ba ca topp sammaun ba ca topp nammaamun ba ca topp akkaalun ba top topp muhaddatun ba ca topp sabaaqun ma ngoog foofa la kon mbind mi yam bu ko defee kon ngeen déglu ko bu baax fexe nag topp ko baamtu ko baamtu ko lu baaree bari bari bari ma ba miin ko bu baax a baax a baax a baax ma ngoog bu ko defee bu tari bi jotee rek ngeen mën cee jaar jaarin boo xam ne day yomb asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.